jaar-jaaru mag ñi seen xarit seen soppe El Hadj Massila kan moo leen koy baaxee guddi àjjuma gu jot su juróom-ñetti waxtu jotee maanaam 20 ci jaar-jaaru mag ñi fépp fu mag bu baax nekk wala fépp fu mag bu baax nekkoon am nga ci cër jaar-jaaru mag ñi wax ju sell ju yenu maanaa ak El Hadj Massila kan fii ci Safina FM 98.2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 وعن سائر خلفائه اجمعين باكو سلي تتد نيغي لين دي نيو تبارك الله سونو كادو دي باو في تي الاذاعه السفينه اف ام 98.2 كاد دي باو تي اس اربام تبارك الله دي نيو مبولم اوديتور اك اوديتريس ييغا خامني باخو نانيو دي ديغلو آه، هذه الاذاعه tabaarakallaahu nu indiwaat sunu émission bi ñuy wax jaar jaaru mag ñi mag ñi nga xam ne seen jaar jaar topp ko yiwu neen la ñàkk gee topp pertange la tabaarakallaahu tabaarakallaahu ñu tàmbalee ko ca sayyidul wujud wa alimul di waxtaane mag ñu baax ñi ba ci cheikh ba ci cheikh Umar ba cheikh Haj Malick ñu yàgg fi lool ci ndigalu Thierno ak wax gu mu wax ni auditeurs yi ak auditrices yi ñu ngi wax ne si daaji Malick bi nañ fi ni nañ fi ni day nañ fi ni jàng ba ci kanam e, yàlla dogal nag e, buñ naan cheikh Haj Malick cheikh Haj Malick e, ak ajam gu am solo googu mu def ñu toll ci période aj dinañu xaw a yaatal tuuti. waxtaan tuuti ci aj ndax Cheikh El ci jaar-jaaram yi doon waxtaane ak mbindam ak taxawaayam ak effort yi mu def bokk na ci def na yitte ba dem mag dem na makkatal mukarrama gii nga xam ne nit ñaa ngi gongi koo ci gox bu nekk li yàlla wax baada audu billahi min ashaytani rajim wa adin fi nnaasi bilxajji atuka rijala wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajin amiq li yashhadu manafia lahum nit ñi booba fu nekk jofi fa Cheikh Alhaji moomu yitte jooju def na ko ba dem te kat li kat li doonoon sax njëlbeenu mbiram ndax jàpp ne xëy na yoonu màkka dina jafe ci moom lool lool lool ndax nekkul woon ku daan dajale alal amul woon alal moom jaamu yàlla ak jàngale la daan def daan na bay nag di jéem lu mu sàmme ngorom di dundee waaye tabaarakallaahu la mu doon yéene mooy comme Maroc soriwul fii ci Cheikh Tidiane Chérif mi ngi jéem a koccaatu lu ko yàlla may lu lew lu dagan lu sell lu mën a demee ziare ji wasilaam boobu di Cheikh Tidiane Chérif mu dem ba muy dajale nan ngéeju pour am téeméeri dërëm yu mu demee foofa yàlla dogal mu am ñetti téeméer daani ni aa ah, nag du sama farata ziare Cheikh Tidiane Chérif du sama farata kat comme maa ngi doon dajale paas faf naa am paas bu dem Makka Makkaay sama farata noonu la dévier daal di wuti màkkatal mukarrama ndeysaan yéene nag lool yéene ju rafet pour bu ñëwee bu ko ko yàlla mayee mu dem Fass ziyaari Cheikh Tidiane yi waaye yàlla dogalu ko moo tax nee na gàllankoor moo tax dog doga demul ziyaari Cheikh Tidiane Chérif waaye màkkatal mukarrama moom monsieur El Hadji Malick dem na fa aj gu rafet aj gu sell aj gu metti nag ndax ñun dañ naan bëreete fii war sunu waruwaay sunu avion def ko cinq heures de vol juróom waxtu nu ni cëpp ca dëkk bu tedd ba bu nu fa toogee weer wu manki dal di dellu siwaat ci sunu ñoñ muy aj goo xam ni dem ak dikk du mat weer Seydi malik ñaari at ñaari at mu boole dugg ak dox ak xuus géej ak xotti jéeri ba àgg ca dëkk bu tedd ba ñaari at kooku kon bu ñu dee mbiram ba agsi ci période aj war nañu mën a yaatal tuuti rek waxtaan ci aj waaye it nag nu dalal mbokk mu baax di boroom xam-xam di ku baax du am di boroom jikko ju rafet tabaarakallaahu mu nekk koo xam ni itam non seulement jàng na mbirum aj ni ko ñëpp jànge waaye nag def na pratique ndax yàlla dogal na mu bokkoon ci mission bi nga xam ne ñoo doon saytu ujaaji Sénégal tabaarakallaahu muy fadilatu oustaz Ousmane Lo di boroom xam-xam di boroom jikko ju rafet ndax nit ñi mag ñi dañuy wax nii Eh, xam-xam boko de dee rek lañ lay doora tuddé borom xam-xam wayé bo ko dul jëfé lo xam-xam duñ la tuddé borom xam-xam ku jang rek lañ lay tuddé usman nak di borom xam-xam tabarakallah ñu dalal ko ni ko nag comme yow boole nga ñaar yi moy jang nga mbiruma acc ba paré def nga pratique ndax dem nga Makka encadré Ujaaji Sénégal ñëpp lu sa taxaway fofu ak sa liggéey bu rafet ak sa xel mu rafet ak sa xam-xam bu sel ma Safina FM soxla na la comme ngan ñu dalal la tabaarakallaahu nga ñëw ah safina bii nag nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nag eh, dëgg dëgg bërëb la bu sell ndax aj màkk gii sax def nañ ci yitte bu rëy rëy ndax ki nga xam ne mooy kilifa gi di Thierno Hamidou Yoroban yàlla dogal na ci yitteem ak dimbale xujaaj yi imaam Moussa Gueye dina leen koy wax daa iman am na agence boo xam ne ci wàllu màkka ji ñu ngi yenu nit ñi di leen yóbbu màkka ak madina tabaarakallaahu di saytu seeni mbir ci bépp bi kulli saraxatin wa raxatin di leen jàppale ba du ñu am benn jafe-jafe ci aj màkka googu kon fadilatul oustaz Ousmane Lo ba la ñuy jël temps bi yëpp eh, ñu dalal la bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ak auditrices yi nuyu waa Sénégal nuyu àddina bi yëpp ndax rajo bi àddina bi yëpp a koy déglu bismillah bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله الذي أعجز وصفه ألسنة الواصفين وحجب عن معرفة إدراك كنه ذاته أفهام العارفين وأوحى إلى إبراهيم خليله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وجعل حرمة حرمه ملاذا وملجعا للقائفين والداقلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة ثم الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن نهج نهجه إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حج مسلا نقول ngi lay nuyu di nuyu képp koo xam ni yaa ngi déglu rajo Safina FM di jiital bu baax ci nuyoo bi ak ziar bi ki nga xam ni mooy kilifa gi di Thierno Hamidou Yoroban mi nga xam ni li ñu bëgg a waxtaane mu jëm ci wàllu aj la Abu Hurayrata radiyallahu anhu laajoon sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko bën jëf moo gën ci jëf yi ñett yam ko waxoon benn ba mang ca daf ko waxoon ni ko أي أعمال أفضل قال الإيمان بالله ورسول قيل ثم ماذا قال ثم جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال ثم حج المبرور Ceerno Hamid ñett yooya ma nga ca di jihaad ci yoonu yàlla ndax ku taxawal lu mel nii jël jàngkat yi nga xam ni xam nañ seen wàllu diine jàng ko ba pare mu indi leen fii ñu di ko jàngal julliti yàlla yi kooku mi ngi ci jihaad ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit kilifa gi nga xam ni mooy soxna ñimma ba eh, di nuyu képp koo xam ni yaa ngi ñuy diglu te di la ziar di la ndokkeel bu baax a baax fa tabaarakallaahu ni nga wax loolu rek la eh, barab bu nekk dafa am lu ñu fa war a wax jamono ju nekk dafa am lu ñu war a wax mm-hmm. am na jamono joo xam ni moom lañ passé ñu di ko tudde cheikh ramadan al mubarak lañ ci war a waxtaan waxtaan nañ ko ca bu jeexee beneen jaamu yàlla moo dëgmal ñu di ko tugge aj makka aj makka boobu nag war nañ caa wax nit ñi lan moo cay farata ak nuñ ko war a doxalee bala ñoo jóge fii di dem fa nga xam ne fa la ñu jëm ba bu ñu àggee ñu xam lu ñu war a wax ak lu ñu war a def waaye duñu ko defee fi olof rek mooy néeg ba jaan paase ñuy dóor watit wa amul njariñ mooy nit ñi da leen di teel a wax lu aju ci seen wàllu aj la cay farata ak nuñ koy doxalee ak lañ cay xam ak luñ ca dul xam ba bu ñu àggee ñu mën a jëf la nga xam ni moom la leen ko seen borom sant su ko defee ñu mën caa màng la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon Euh, ndax itam wax dëgg yàlla euh, jàng moom def ko nit wax defal ko nit ñi lu baax la balaa aj makka ñëw su ko defee loolu rek moo waral tey incha allah ñu ñëw euh, suñ kam talaayal kattan lañ ca xam ak lañ ca man ñu wax ko ci ba nga xam ne loo yàlla dogal rek loolu la ñu delloo la kàddu gi ba ci kanam incha allah. jërëjëf Fadilatu Oustaz Ousmane Lo dafa mel ni ni nga duggee rek. wane na ni waxtaan wi na tegu ci yoon waaye nag comme tabaarakallaa sunu sunu directrice eh, bégaleen nañu luñ doon ñaan mooy eh, émission bi comme dafa am ñu doon demander ni ah bu ñu sañoon mu xaw a yaatu tuuti dina leen permettre luñ bëgg a dégg ñu dégg ko en même temps dina leen permettre bu ñu bëggee wootee ñu wootee ba dollil nañ ñu ci trente minutes yoo xam ne mën nañ ko réserver pour wàllu téléphone ak wàllu tabaarakallahu eh, yeneen i mbir yu koy yokk su ko defee loo dañu lay bàyyi rek bala ñuy jël temps bi ndax yenn saa yi ñu dalal nit muqaddima yu gudd a gudd ba la muy wax du jot a bari heure ba jeex kon nag dañ lay bàyyi rek nga dugg directement ci waxtaan wi eh, jullit yëpp a ngi lay déglu ñuy waajal aj wala seeni mbokk di ko waajal ñu ngi lay déglu tabaarakallaahu pour nga wax leen lu ñuy def ak fu ñuy teg seen tànk. waaw xam nga jërëjëf xaj si la doomu aadama yàlla def ko bind. bindu ko lu dul ngir mu jàmm ko. Mhm. jaamu gam ko jaamu nag jullee ci ëpp doole. moo tax buñ nee ponki lislaam juróom la. ba ca jiitu mooy shahadataani bo ci joge iqaami salat la bo ci joge itay zakat la sawmu ramadan ñëw hajjul bayt doog a ñëw toujours may wax nit ñi ne len gis nga juróomi ponk yo yu nga xamni mom la yàlla teurel ben bu ci nek dafa am lu mo wara jeexital ci doom adama su ko de def su koy def nak te jeexatulal ci mom def ba amul njariñ muy la aju ci walu julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar bokoy def lolou warna naa jeexital ci yow so joge ci julli azaka mo cey teggu so koy def la la yàlla jotu dénk ci alal warna am jeexit muy khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha so ci joge kor mo cey teggu korit it la ka la yàlla wax so koy def so pare ci kor gi warna naa ci yow ndax ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum adiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaquun tattaquun boobu lañ ci soxla taqwa boobule soo jógee nag ci taqwa la cay teg nag mooy aji màkka aji màkka googu yowmal xiyaam dong la war a delloo doomu aadama ndax nit ki bu fekkee ni mi ngi julli waratul wax lu bon waratul def lu bon su fekkee mi ngi joxe azaka yàlla war naa sellal alalam ndax yàlla moo ko wax soo ci jógee nga woor soo wooree nag ba koor gi jeex ragal yàlla googu mu def ci yow nag yàlla ne ñëwal wuy si ma muy aji màkka mhm. aji màkka toujours ma di ko wax nit ñi ne leen bu ngeen fa demee ñeenti farata rek la am mhm. farata bu ci nekk daf lay delloo yowmal xiyaam mhm. bu njëkk bi mooy armal soo ci jógee mooy wër kaaba ga soo ci jógee mooy daw safa ak marwa soo ci jógee mooy taaw arafa léeg-léeg ma di ko tënk ci nii nit ñi madinatul munawwara la ñuy faatoo ñu sang leen fa indi leen fu ñuy tuddee makka jullee leen fa suul leen fu ñuy tuddee mun naa bis penc taxaw muy arafa xajma si la ndax boo demee makka sénégal yëpp buñ jógee duñ def direct makka médinatul munawwara la ñuy wàcc am fa seen juróom-ñaari fan ya la ko waral pour rek julli ca jàkka jooju nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku fi julli ñeent fukki julli sa yaram araam na safara moo tax ñu may leen rek ñu di am juróom-ñaari fan yooyu le pour julli fa juróom ñaar ñeen fukki julli yooyu le suñ fa jógee nag dañuy war a armal nit buy armal di dugg ci wanagam sangu defe naa ni sangu farata mm-hmm. su ca jógee dafay làmbaayoo yu weexam yooyu le mm-hmm. may wax nit ki su tollee foofu mm-hmm. di sangu-sangu farata bu paree mu def armalam yooyu su tollee foofu na ni maa ngi nii di ko defal suma bopp manal ko suma bop jamono dina ñew ñu dugal ma fi may dugg sama dugal sama bop manal te duma manal suma bop bu kerogee dara mhm. ñu sang ma suma pare dañ may sang yalla fi ma tollu sangu ni sangu ni suma agge àggee ni ma sango seti ni yalla ma setale bu boba mhm. so fa joge dem makka bo demé makka da nga daw lu bari doga a àgg makka so agge makka nak kaaba ngay jubal kaaba googu la ni mom lañ lay jullee ndax momit war nga ko wër ñaari yoon dañ wax ni adama suy wër kaaba gi day jël loxo càmmoñam féeti ko ci càmm euh, kaaba gi la ko waral mooy xolu doomu aadama ci loxo càmmoñam la nekk mhm. leer gi jóge ci kaaba gi di dóor ci sa xol bi nga di ko def juróom-ñaari yoon dañoo bëgg soo paree sa xol bi leer set wecc mhm. ndax yàlla julli yi ñuy julli koor yi ñuy koor aj yi ñuy aji màkka yàlla nee na ëllëg amalu ma njariñ li ma soxla ëllëg mooy xol bu set yow ma la yan fa u maalun wala banoon ila man atallah bi xalbin salim mhm. xol bi set na bu xol bi setee nag nga jóge ca dem taxaw safa pour war a daw dem marwa taxawaayu safa ba soo taxawee da nga naan yàlla maa ngi nii taxaw safa tànk baa ngi nii dëgër maa ngi ni jëm marwa ëllëg dana ñëw ñu war a jéggi siraat su ñu waree jéggi siraat taxawaay booba ma fay taxaw yàlla bu ma fa daanu ndax siraat ci digg jahanama lañ ko tëral siraat sew na siraat lëndëm na yëngatu na ñaw na su yàlla dëgëruloo sa tànk boo fa yëngatoo boo sàggunoo mën ngaa daanu te boo daanoo safara nga jëm looloo tax ñu ni soo tollee safa nga ñaan yàlla ni nii tànk bi dëgëre ma taxaw fii su ma àggee siraatu ëllëg yàlla nga dëgëral na noonu suma tànk suñ fa jógee nag juróom-ñaar yi juróom-ñetti fanu mun naa mooy jot ñu jógee fa dem mun naa suñ jógee mën naa bët sa juróom-ñeent la ñu war a dem arafa taxawaayu arafa nag mboolem àdduna bi ñëpp fay daje ndax àdduna bi juróom-ñaari continent la continent bu ci nekk dana am ku fa jóge su juróom-ñeenti fan jotee ci weeru tëbaski ñëpp dañuy taxaw arafa am na ñoo xam ni sax danañu feebar bañ entre leen hôpital ñu tëdd fa mais gis nga bu arafa jotee ambulance bi day ñëw ci buntu hôpital bi ñu génnee ñëpp tëral ci biir ambulance bi mu daw ba biir arafa mu taxaw fa yendu ba jant bi soo ñu doog leen a dillu si parce que alxajju arafa loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon kon su ko defee loolu mooy juróom-ñeenti fanu arafa daje bañ fa war a daje mooy daje euh, ne tey la bis pinc ndax juróom-ñaari continent yi ñëpp dañ fay daje su fa juróom-ñaari continent yépp dajee nag ñépp toroxlu tilim mel noo xam ni seen karaw ya jaxasoo seen bët yi xonq kenn ku nekk mel noo xam ni si da lay wóor ni soo nekkoon fa nga dëkk doo mel noonu waaye li ko waral du dara lu dul ñëw naa pour mottali si jaamu yàlla gi nga xam ni moom la ma yàlla sant mhm. ñu ne yàlla nag ñoo ngi ni taxaw ñoo ngi lay ñaan nii ñu taxawee fii ngir topp sa ndigal ñoo ngi lay ñaan yal nag ñu jéggal suñu bàkkaar ba ba ëllëg buñ taxawee bis penc ci sa kanam yi tamit nga gërëm ñu ñu gërëm la nga dugal ñu aljana kon su ko defee doomu aadama war naa préparer euh, boppam euh, balaa yooyu agsi su ko defee ñu xamal ko nit ki nag mu war a jàng wàllu ajam euh, ci ni aj makka dafa am ay farata yu ñu war a def aj makka dafa am koo xam ni moom la war mu war koo def am na koo xam ni waru ko aj màkk soo ko doon dajalee da nga naan juróomi ponk la juróom yi kum dajewul ci yow waroo dem màkk bi ci njëkk mooy war ngaa nekk ci lislaam kon yéeféer génn na bi ci tegu war ngaa masoor kon ku masoorul génn na ki ci des war naa am xel kon dof génn na ki ci tegu mooy gor kon jaam génn na ki ci tegu mooy ku ko man kon ku ko mënul génn na ci juróom yi nag su dajee ci yow demal nga aji màkka ndax yàlla moo la ko sant boo amee nag nek ci l'islam masoor am xel nek gor mana dem màkka te demulo màkka yaronte bi ali salaatu wasalaam waxon na ci hadithul qudsi ne yàlla muni kep ku mana a dem màkka te ajiwul màkka suuf si muy dox mako mom nako wàcc asaman si ku tim mako mom nako génn ko wàcc suufu yàlla si nak génn asamanu yàlla si xawmu fo jëm kon ku mana a dem màkka nga dem màkka ndax farata la walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istata ilayhi sabila aj màkka yàlla da ko farataal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jógee makka ñëw madinatul munawwara ba mu amee juróom benni at loolu la am na ñu wax ñu bari ñu wax loolu ndax aaya bii nga xam ni jamono jooju la wàcc jamono jooju la tollool wa mooy wa atimul xajja wal umrata lillahi kon su ko defee aj makka farata la ci koo xam ni si masoor nga farata la ci koo xam ni si lislaam ci nga nekk farata la ci koo xam ni sii am nga xel farata la ci koo xam ni gor nga farata la ci koo xam ni si attan nga ko kon su ko defee nit ñi ñoo ngi waaj pour dem Makka euh, nañu préparer préparation boo xam ni mooy li may wax nit ñi nii nit ki balaa jël ñaari million ak nangam départ dëkk jëm dëkk te bu ko defee wóorul ndax dana ko defaat war na ci moom balaa dem mu jàng ko xam ko ba bu àggee mu di ko jëfandikoo toujours nag may wax ak nit ñi nii ci ñi yor wàllu aj gi ne leen dafa am yoo xam ne senegal yi ñoo ngi koy doxal gënul ci wàllu aj ndax euh, damay wax nit ñi ni leen dama bëggoon su fekkoon ni sañ-sañ a ngi fi ak man-man bu ñu déparé mag Dakar avion bi naaw ba Medinatul Munawwara ñu am fa juróom-ñaari fan war faa jóge dem fa ñuy sulxulay fa bi nga xam ne si fa la ñuy jullee suñu ñaari rakkaaya pour war a yéene ñetti aj yi pan laa ci war a def ñu jóge fa oto bi war a daw ba àgg makka suñu àggee teg suñuy bagage hôtel dem jubal kaaba ga wër ko dellu si ba juróom-ñetti fan ya ñu jóge fa dem munaa jóge fa dem arafa jóge fa dellu si musdalifa jóge fa dellu siwaat màkka jamono ju ci nekk ujaaj yooyu am na ay missionnaire wala am na ñu jàng diina ñu leen war a booleel ñoo xam ne war ñoo taqalikook ñoom su ko defee ñu war a leen a xamal seen wàllu aj màkka aj màkka nag euh, comme ni nga ko waxee mooy farata la yàlla moo ko sant jaam yi pour ñu war koo def képp koo xam ne mën ngaa aji te ajiwuloo wuloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na euh, bu yeboo nga génn ci suufu yàlla si nga xam ne moom ngay dox euh, ñi aji màkka nag war nañoo xam aj màkka ni ñetti xeeti aj moo am ban lañ ciy def am na lu ñuy tudde xiraan am na lu ñuy tudde tamato am na lu ñuy tudde ifraat ñetti yëpp benn bu ci nekk nag war ngaa xam ban laa ciy def su may dem xiraan mooy dangay boole aj ak umra soo armalee dangay boole aj ak urma umra sooy labbayka da nga naan labbayka bil xajji wal umra bu fekkee nit ki deful xiraan tamato lay def kooku mooy dafay njëkk a umra ba umra gi jeex mu dindi ay làmbaayam yi mu soloon di armal ya sol ay yéreem ba juróom-ñetti fan ya jot su ko defee mu armalaat ca màkkatal mu karam nag doog war a yéene pour aji màkk su fekkee ifraat ngay def soo armalee mag medinatul munawwara doo taqalikook sa armal yooyu ba aj gi jeex takk su aj gi jeexee nag bu umra ubbee nga solaat nga armalaat dem jàkka ji ñuy tuddee jàkkaay Aïcha yéene fa armal dellu si makka wër kaaba ga pour war a umra umra bi ñetti aj yi tamit kenn ku ci nekk war nga xam ban nga ciy def ba nga xam ne soo àggee màkka nga ni bii laay def kenn ku ci nekk nag ci ñun muy sénégalais yu bari yu ci bari ay ifraat la ñuy def waaye yëpp ñoo ngi ko yéene madinatul munawwara su ko defee ñu taxaw foofu ba ci kanam euh, ñu doog a continuer incha allahu li ci tegu ñu doog ko ci teg tabaarakallaahu jërëjëf Ousmane euh, waxin ku ko dégg xam ne yëf yemoo ci jàng ko ci téere yi kese ndax eh, ku ko yem ku yem ci téere yi kese boo moytul boo demee gëlëm ndax eh, mbir la moo xam ne eh, tabaarakallaahu pratique bi baax na ci lool moo tax li nga wax leer na te set na te sell na su ko defee itam li ñu ciy contribuer rek lu gàtt la ni nga ko waxee sànq ci wàllu màggaayu aj gi ak ndigalu borom bi nga xam ne moo ko diglee jaare ko ci ku tedd ki mu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax ci lim ci wax dëkk la boo xam ne ña jóg jëm dañu war a bàyyi xel ni yemul ak dëkk ba ñu jógee yàlla moo taaral dëkk ba moo ko tànnal boppam def fa néegam boobu nga xam ni tabaarakallaahu mooy sangu néeg yépp def ca gox ba yonentam boobu nga xam ni mooy sangu yonent yépp looloo tax dëkk bi leen ëmb ñoom ñaar mooy sangu dëkk yépp eh, Ousmane tabaarakallaahu ci waxtaanu am solo wi dama ciy dolli rek baax ko mbokk yi mooy Makka da dëkk bu sell ndax dañu wax ne turam yu bari yi mu am sax te ne nañu lépp loo gis ay turam bari day wanaay day wane màggaayu loola Makka dinañ ko wax Makkata di ko wax Bakkata di ko wax Umul Qura di ko wax Al di ko wax Baladul Amin di ko wax Baldatu di ko wax Xaramu Amin di ko wax xayri zi di ko wax euh, maad di ko wax xarya ba ci tabaarakallaahu tur yu sell yooyu benn bu ci nekk alquran tuddee na ko dëkk bu tedd boobu te nee nañu lépp loo gis ay turam bari màggaayam lay tekki loolu boo gisee ñu leen koy wax mooy dëkk bu màgge nii jaral yàlla lii hmm. tudd ko tuddin wu nekk war na ku fay dem li oustaz wax ne lu toll ci millions yu toll noonu nga dem def ko ba pare dem la nga def lépp nekk haba an mansura ndax nit dina aj ba pare ñu ni ko laa labayka wala sa'dayk fa inna hajjaka mardud waaw sa aj googu dañ la koy retourné delloo la ko makkata ci turam yi la bokk mu ngi ci alquran suratul fathi wa huwa alladi kaffa aydiyahuma ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka من بعد أن أزفركم عليهم سورة الفتح تدنكم بكة إن أول بيت ودع للناس الذي ببكة مباركا بقول تمت بوخ دمي دين كوفيك تي آه، آل عمران لا فمي ديمران تدنكم أم القرى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها سورة الأنعام nga xam ne tudde na ko tur woowu tudde na ko balad mu nekk fii soriwul wa id qaala ibrahim rabbi ijaal hada al balada aminan suratu ibrahim tudde na ko baladul amin wa hada al baladi al amin ci suratu tiini tudde na ko balda innama umirtu an abuda rabba hadihi al balda alladi xaramaha ci suratu uh, namli tudde na ko xaram amin awalam nu mat مكن لهم حرما آمنا سورة القصص لنك واد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع سورة إبراهيم تدنكو معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلا معاد تدنكو قرية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجناك surtout Mohamed tuddee na ko itam ok tuddee na ko xarya tabaarakallaa loolu nag ñu ni lépp loo gis mu bari ay tur day wane màggaayu loola kon usman li nga wax ni sacrifier lu toll noonu ci ay million dem ca dëkk ba ba pare dellu siwaat ñu ni la laa walla wala saadayka inna xajjaka mardud hmm. ne loolu loolu kenn ku ne war nga ko moytu tabaarakallaahu dinay wax ne aju senegal metti na ndax buñ ko yemale woon ci farat di ni farata la yàlla ko santaane farata diisul li sunu maam ju baax ji ci Tuubaa wax nee na lépp loo yenu mu diis lool ba mënoo dem boo ko yenn koo jeex ko la lay bëgg a rey du lu la yàlla sant sa bakkan la waaye li la yàlla sant kay laa yukallifu llaahu nafsan illaa wasaaha sénégalais tàggatoo ba rek bii màkk la waaw sénégalais dellu siwaat ga ca nganee la ga rek bi yëpp màkk la sénégalais chéritier rek bi yëpp màkk la loolu ku ko mën loo xam ne ne nañu la deux million nangam lañ la laaj dem géeg dikk nga fexe ba gàll ca lu toll noonu ñaari yoon mu war laa coûter cinq millions wala six million da ngay dem ba mujj sa farata nga bàyyi ko ndax puukare loolu nag moom la Seydou Ousmane doon leeral doon ko faram-fàcce doon ci yee mbooloo mi tabaarakallaahu yàlla dogal itam Ah, sànq dañu jéem a jokkoo ak sunu beneen mbokk bu baax bu yàlla baaxee monsieur El Hadj Malick Fall bu rajo euh, Walf de tabaarakallaahu di sunu lépp tamit wax dëgg yàlla ñu amoon fi rendez ni na ñëw ci plateau bi waaye ñoo ngi koy nuyu di ko ziara ñu dalal Ousmane mu continuer ci waxtaan wi bu ñu demee ba ci kanam El Hadj Malick di borom xam-xam bu yàgg ci rajo yi. yàgg waxtaan ci xam-xam bu nekk yore woon émission bi ñuy wax tànneef ñëpp xam ko tabaarakallahu kon Ousmane ba tey ñu bàyyi la nga continuer maa ngi di jégalu sax li ma ci dugal e, daf lay xaw a bloqué tuuti te nit ñi doyaluñ ci li nga doon wax ndax leeral gi dafa leer nàññ bismillah waa xam nga xaji ma si la jërëjëf dama li nga mujje rek lay tàmbale mooy nit ñi dañuy yenn loo xam ne yàlla tegu leen ko dem Makka dellu si dajale fa nit ña ñàkk fa lu toll ne ba ngay dem lu toll noonu nga ñàkk yàlla tegu la loolu te farata rek nga defi woon moo ndax boo jógee jàkka ja boo dellu si nit ñi dañ fay daje di la ndokkeel waaye xëy na nag dëkk ba nga jóge ki tax ñu bind la mooy sayyiduna Muhammad moo rëy ci nit ñi rëy goo xam ni ka fa munta dem bu gisee ku fa jóge day bëgg a dem mu ndok ndokkeel ko ah. xëy na loolu mooy sababu euh, bu nit ñi ñibbisee màkka ñu dajaloo fa kenn ku ca nekk euh, naan ca la fa jële lekk ca la fa jële nga tàllal loxo yi ñu ñaan ndax yonent ndax wax nañu ni ku jóge màkka boo ñëwee ñeen fukki fan loo ñaan yàlla yàlla man kaa nangu ndax jaamu yàlla jëf la joo xam ni jëf ju am solo la muy aj màkka abu hurayrata radiallahu anhu dafa mës laaj yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko ayu amalin afdal qaal wax naa ko sànq iman billahi wa rasulihi qila thumma maada qaala thumma jihad fi sabilillah qila thumma maada qaala thumma hajjul mabrur abu hurayrata dafa ne yonent bi alayhi salatu wasalaam jën jëf moo gën ci jaamu yàlla yi mu ne ko gëm yàlla akub yonentam kon lañ cey dégg mooy la ma wax sànq ni ki nekkul ci l'islam moom mooy gëmuloo yàlla gëmuloo yonent bi kon jarul ngay dem foofa boo xasee gëm yàlla nag ak yonent bi boobu moo gën ci jëf yi soo fi jógee nga def jihaad ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla nag firiwul ni da nga yor yetta ki jaasee ki fetal di dóor déedéet orienté nit koo xam ne dafa réeroon sax ba mu dellu si tegu ci li ko sant kooku yaa ngi ci jihaad soo ci jógee nga dem aji makka xaj ma si la wax nga dëgg yàlla ku bëgg yonent bi la Euh, li la koy xamal mooy boo demee ma dinatul Madinatul Munawwara dem Makka waxtaan nag genn góor gu fa dem mu ne ma oustaz ma ne ko waaw mu ne ma yàlla ku fonk yonent bi te bëgg ko la ma ne ko lu tax mu ne ma yàlla dëkk yonent bi la defar bàyyi dëkkam ndax boo ne cëpp Madinatul Munawwara guddeeg bëccëg ci bokk yam puso bu rootee nga for ko Makka nag xëy na la wër xaram xaram ba ak yooyu ñooy ne barab yu rafet ya ak hôtel ya waaye leneen la ca des fa tabaarakallaahu taaroowul noona la ko la ci wër yëpp ay xeer la euh, bëgg googu nag yonent bi yàlla bëgg ko fonk ko loolu moo waral sénégalais yi suñu jógee ñu wàcc madinatul munawwara pour ziyaara sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nag xel dadul mën a nangu xel da dul mun a dal ci nit ki dem naa aji màkka waaye fañ tëral yonent bi gisuma ko te ñu wàccee woon aj ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax sénégalais yi ñu xeex xëy na ba bu ñu jógee seen avion wàcc Medina ñu wàcc dugg ca rawdu sayyiduna Muhammad di booxante ba dox ba gis fañ tëral sayyiduna Muhammad ñu xam ni ki tax ñu bind ma mi ngi ni tëdd ñu xam ni ki tax ma sonn jóge suma dëkk paas lu bari ñëw farata jooju ki ñu ko wàccee woon ci moom mi ngi nii tëdd nga ñëw tiim koo xam ne wóor na leen ni ëllëg bu mbir ma méttee ba métti ba jafe ba jafe ku ne ñu dem ci yow wax la nga ne mënuma ci dara bu ñu ñëwee ci sayyiduna Muhammad mooy jóg ñëw ci yàlla su ñëwee bëgg sukk wala mu bëgg a sujjóot yàlla ne ko jógal sal tuta wasta tusafa kooka nga xam ni moo war a ramm jaam yi ëllëg mi ngi nii tëdd kooka euh, moo dafay xel dalal xel ci ni féexal sa xol ci ne dem naa màkka tiim naa kooka su ko defee euh, loolu rek mooy sababu nit ñi di dem Euh, madinatul munawara léeg-léeg sax nga dégg ni di la tàggu naan la damay ren damay ziyaare ji yonent bi te loolu bokkul ci farata yi ndax farata yi aj màkka départ maanaam aj màkka la ci aju lépp ci wàllu farata du màkka du medina madi màkkatul karam la su ko defee euh, fa tabaarakallaahu euh, waaw waxtu julli bi daf ñu def bu ñu noddee julli rek tabaarakallaa fi nga toll nag teg ci sa baaraam ndax dafa am solo te tabaarakallaa bëgg nañu nga eh, continuer leeral ko kon ñu bàyyi nodd gi eh, jàll ñu door a continuer émission bi bismillah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 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة وابعثه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 والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات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 tabarakallah barakallah yalla yalla nangu ñaan tabarakallahu ñu eh, fàttali len ñoo ngi ci émission jaar jaaru mag ñi waye nak ñu waxtane aj dalal borom xam-xam bu mag muy fadilatul ustaz usman Lo di borom xam-xam bo xamne jang na pratiquer na ndax bokkon na ci commission bi nga xamne ñoy yore walu hujaji fi ci senegal di borom xam-xam bo xamne tàmbali woon na di leeral lu am solo waxtu julli dab ñu ñu bokk ko bàyyi mu àggale leçon bu am solo boobu mu tolloon fadalatu ustaas bismillah tabarakallahu xaaji Masila jërëjëf ñoo ngi nuyu suñu mbokk xaaji malik Fall di ko ziar bu baax muy dogg ak si borom xam-xam ñu yàgg ko diglu yàgg ko topp ci ibisoom moo nga xam ni moom la doon def ca Walfadjri di tànneef Hajiba Sylla wax nga deug aj mak farata la bo xamni yalla moko gal ko ci losu jam bu ko man comme ni ko waxee sànq pour mu war ko def ku yalla baxé nak may la lu la yobbu te wóoru la ndax dang fa wat so fa demee lepp lu ca aju diko wara defar war nga ca gor gor lu lepp lo xamni da koy yak war nga ko moytu te li olof di wax naan du xam ngañ yàgg cub la li ñuy li luñ ci xam dara la am na ca loo xam ne du ñuy teg bët la ci gis ñoo xam ne dañuy aji màkk ñoom dañuy mel ne ku dem fii ci marché bi rek lu leen neex la ñuy doxale ca barab yooyale lu leen neex la ñuy wax te bari na nag loo fa jëf mbaa nga wax ko fa sa aj yàlla du ko abu hurayra radiallahu anhu boo gisee ñuy cité yu bari Abu Hurayra dafa bari woon lu mu taqoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba moom lépp lu mu déggoon yonent bi wax ko rek mokkal na ko bari na yi tamit lu mu daan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abu Hurayra dafa wax ni man xajja fa lam yarfus walam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummuhu bu la yàlla mayee loolu nag kon soo demee ci barab bu mel noonu war ngaa bàyyi xel fi nga ñëw bàyyi xel li ngay def ndax nee ku aji caaxaanoo mbóorante defuloo ko fa fowuloo ba aj gi jeex tak nee day mel ni bis ba ngay dogg judd ci sa ndey ak sa bay nit nag bu liir la buy jumujif, a daanu defe naa andiwul benn dafay weex tàll nit ki nag bu amee jëf ju mu jëf nga xam ne da koy delloo ca loola bu àggee ci jëf jooja war naa bàyyi xel jëf jooju muy jëf te jëf jooju su ko jëfee ba yàlla nangul ko ko dara du nekk payam lu aljana ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee alxajjul mabruur laysa lahu jaza ilal janna aj gu yàlla nangu dara du fayam lu dul aljana moo tax ma junj sànq ni aj makka dellu ca yàlla la aj makka dellu ci yàlla la mooy boo jullee moo jiitu xam nga ponk lislaam juróom la shahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaai zakat wa sawmu ramadan wa xajjil bayt shahaadataani gannaaw ga moy gëm yalla ak yonentam ba so ci jógee ngay julli so dé julli jikko ju bon ju néwon ci yow yalla da koy génné so jógee ci jikko yu bon yoyu nak mu duggal la ci koor so paré ci koor da ngay ragal yalla yalla né la nak jikko ju bax ji amna ragal nga ma mais ñewul wuy si nak légui moy dem bi ñuy dem alja moy dem bi ñuy dem makka mo taxon mo junjoon sank ni aj makka ñenti farata la farata yoyu nak benn bu ca daf lay delo ci yàlla mooy armal ba sang faatu nga sang nañ la sàng nañ la wër kaaba ga mooy xol bi da caa war a defaru ndax boo taxawee ci kanam yàlla ëllëg sa xol dafa war a defaru daw safa ak marwa mooy taxaw bi ngay taxaw siraat arafa mooy ñeenteelu farata ba mooy bis pinc ba kon su ko defee yooyu yëpp boo ca àggee war nga caa bàyyi xel bu baax a baax a baax su ko defee ñu wax mbokk yi rek nii bu ñu jógee senegal dem aji Madinatul Munawwara la ñuy wàcc suñu jógee Medina ca seen juróom-ñaari fan ya dugg seen kaar ya sangu ca seen hôtel ya bu ñu sangoo dañuy ñëw barab bu ñuy tuddee sul fa mhm. am na jàkka ju fa ne jàkka jooju la ñuy dugg julli fa ñaari rakka rakka bu njëkk bi dañuy jàng fatiha qul ya ayyuhal kafirun ñaareelu rakka ba ñu jàng fatiha ak qul huwa allahu ahad suñu sëlmalee nag ñu yéene ban aj lañu ñu war a aj ci aj yi ñetti aj yi mhm. wax naa ko sànq ñetti aj yi xiraan la tamato ifraat sénégalais yu ci bari nag ifraat la ñuy faral di def mhm. ifraat mooy da ngay aj ba aj gi jeex takk su aj gi jeexee nga toog ba umra ubbi nag nga sangu armalaat dem jàkk ju ñuy tuddee masjidul aysa nga yéene fa arm nga yéene fa euh, armal bi yéene fa umra bi doog a dellu si nag def sa umra bu jeexee jeex na mhm. bu dee xiraan la mooy da ngay boole aj ak umra su dee tamatoo la nag dangay ngay umra ba pare nga def sa aj su ko defee bu medina dugg kaar yi wut si makka suñu ñëwee makka yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su kaar bi daw ba nga ak si makka nee na sa bët bi tegg bi mu naan tegg bu njëkk ci kaaba gi loo ñaan yàlla yàlla may la ko laa daan dégg jam solo ñëw fa naan yàlla na ma yàlla may fan wu gudd soo amee te wéroo nag ndax am na yal na ma yàlla may xaaliss bu bari bo amé xaaliss bu bari té am fitna nak ndax am na njariñ lu ne nga ñaan ko néna na jaru ko mhm. nee na daal bu bët bi né tégg ci kaaba gi neel yalla luma ñaan yàlla na ko nangu so duggé nak lula neex ñaanal <laughs> am dé mhm. bo né yalla, yalla kaaba gaa ngi nii daal ma ngi koy gis luma ma fi ñaan yalla yàlla nag ma koy nangul soo duggee nga ñaan té waxto waxto am solo la ndax li tax waxto am solo la moy fi mu ne xajmaali booy julli noy jublu penku lu fa né kaaba ga mais da ngay natalé rek mais nag di dem di dem ba mu wóor na leen ni su may julli toujours fii la daan jublu waaye tey mi ngi ni maa ngi nii maa ngi koy teg bët ah loolu ku ko yàlla may nag boo accès nel yàlla lu la fi ñaan yàlla nag ma may su ko defee nga nuyoo nga wër ko waru nuyoo soo fa jógee taxaw ibrahim julli fa foofu tamit ñaar rakka li ñuy julli rakka bu njëkk bi da ngay jàng fatiha xul yàl kafiruna ñaareel rakka bi nga jàng fatiha ak qul huwa allahu ahad soo paree nga daal di dem tànqi ndaxum zam-zam nga naan ko ñaan nga yonent bi doon ñaan nag soo ko mënee nga ñaan ko ci arab soo ko mënul nga wax ko ci olof yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may xam-xam bu ma jariñ yàlla nag ma may wërsëg wu yaatu bépp jàngoro bu nekk ci man yàlla nanga ko dindi allahuma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa wa wa wa shifaun li kulli da'in su ko defee loolu nga ñaan ko yàlla soo paree nag nga doog jóge dem safa soo demee safa dem marwa soo ca paree nag ah, toog ba juróom-ñetti fan juróom-ñetti fan ci wéeru tëbaski nag ci la aj màkka doo ko tàmbali ñu jóge fa ñu ñëpp nag dem barab bu ñuy tudde munaa foofa la ñuy nekk juróom-ñetti fan bët set juróom-ñeent ñu déparé fa war dem dëkk bu ñuy tuddee arafa arafa barab bu am solo la ku fa ñëw góor-góorlul ci wàllu jaamu yàlla ak wàllu ñaan loo man ci ay hay àlla nga di ko def man ci ay salaatu ala nabi nga di ko man ci jàng alquran nga di ko def léeg-léeg nag ma dégg nit naan man mënuma dara ci alxuraan lu dul falaxeeg naa si ma ne aha baax na lu yàlla wax faqra'u ma tayassara minal minal quraani mais yow falaxeeg naa si nga man comme falaxeeg naa si nga man kay te yàlla nee na jàng leen lu ngeen man ci alxuraan te falaxeeg naa si nga saxal ci falaxeeg naa si rek boo sonnee rek nga tënal sa téere nelaw def istixfaar yu bari laa ilaha illallah yu bari tudd yàlla lu bari buñ fa yendoo ba jant bi so nag ñu doog fa départ ñëw musdalifa boobaa foofu buñ fa ñëwee for suñu xeer ya dellu siwaat mun sanni jamra ya suñu fa jógee dogo a bët di juroom ñeenti fan ñu dogo delu ci wat makka war wër kaaba ga war def suñu aj wër suñu wër bo xamni moy tawaf tawaaful idafa jóge fa taxaw ma julli wat fa nan zamzam dawi wat safa ak marwa aj gi jeex ku yalla baxé ba nga dem mukarram war nga sant yalla bu baax ndax doom adama ponkil islam yalla acci mom muy julli woor joxe azaka aj màkka booba benn yoon la ci dundu doomu adama ba ko yàlla joxe jibril alayhi salaatu mu ñëw ni ko yàlla ma yónni mu ne ko lu mu wax mu ne nee na farataal na ci yow aj mu ne ko baax na jibril dem yonent bi ni léegi la fi jibril jóge nee na yàlla farataal na ci ñun aj benn saxaaba ne ko ndax at mu ne la yonent bi tontuwu ko mu jekk bam yag sahaba bi ne ko ndax at Munela, la yonent bi tontuwul mu ne ko ndax at Munela, ti yonent bi si ne ko dedet ben yon ci dundu doomu adama ndax su waxon ni at Munela, kon at muné dage da ngay wara dem te doko man kon nak at muné dal, ben yon ci sa dundu mo cey farata pour nga dem aji makka ah aj muné nak nga dem aji makka baxna ndax euh, dalal xelu ci ni at mu njëkk ma ma demoon ren lay gëna préparer ndax daw lay dogu am na yu ma bàyyi woon ren dinaa ko gën a respecté waat bu baax su ko defee daal euh, nit ñaa ngi waaj pour dem mottali ji seen ponki juróom muy aj makka ñi bëgg a dem ñëpp yàlla na yàlla yóbbu leen ci jàmm ñu dem ak jàmm dellu si ak jàmm ñu demul gul yàlla na yàlla yóbbu leen euh, mbir mi nag bari alal taxuta dem néew alal taxut a bañ a dem bari na koo xam ni amul lu mu ndékkee amul lu mu añee yàlla yóbbu na ko am na koo xam ne mi ngi ni guuj guujaaral feesal del te demul fenn ooteb yàlla la ku yàlla woo nga dem li am solo mooy yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ni moom lañ yàlla woo ñu dem fa xaj ma si la mhm. su ko defee foofu la ñuy taxaw ba ci mhm. kanam incha allahu luñ ci yokkaat ñu doog ko ci yokkaat tabaarakallah jërëjëf fadilat oustaz tabaarakallah bala ñuy jox Cheikh El Hadj Malick ñu dolli ci tuuti rek ndax euh, dafa am lu bëree bëri loo xam ne ci wàllu aj ji yenn saa yi ngay dégg euh, nit ki jóge màkka ñu wax ni ñeent fukki guddi bu ñaanee yàlla mu nangu ñenn ñi di wax naan ko sàllaaw da ngaa jëli woon sa kaala yooyu yëpp di terme la yoo xam ne dañ koy faral di dégg waaye eh, wolof ñaare lu mu wax rek eh, am na delluwaay da ngaa jëli sa kaala yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa wax ni solaatu fi masjidi hada xayru min alfi salaatin fi ma siwaahu illa al masjid al haram Julit sama jakk mo gën junniy julli yoo julli feneen ba mu des kaaba gi bu ko waxee ba pare wax ne nga ànd ak sa mbokk julit di ko aajoom ba aajo ja faju moog julit sama jàkka ñoo kon soo yàggee ànd ak sa mbokk di dox aajoom ba aajoom faju nga mel ni yaa ngay julli daa iman ci rawlu yonent bi ci jàkk yonent bi kon boo jógetee dem da ngaa jëli kaala wax ji loolu la wund mm. baatu ñeent fukki guddi loo ñaan mu nangu yi trace bi nga def bu la yàlla nangule waxuma ñeent fukki guddi sax waaye koo ñaanale te mu nangu ndax ni ko Ousmane waxee ni xam nga ni sénégalais yi bu ñu masaan di aj jóge fii di dem daawuñu wàcc directement Madinatu Munawara jidda lañ daan wàcc jidda lañ daan wàcc door fa départ de Madina te diggante boobu ay quatre cent cinq cent kilomètres la ñuy dugg bis si mu yóbbu leen Madina 2004 bi passé boobu beneen buur a fi nekkoon ci réew mi moo ci la négocier ba ak yi di wàcc directement Madina boo ñu fa wàccee def fa juróom-ñaari fan ni ko oustaz Ousmane waxee moo leen di permetre ñeent fukki julli yi ngay dégg quarante prières yooyu nga xam ni ñu bëree bare bëri dem nañu ba jàpp ne ci aj gi la bokk te bokkul ci aj gi parce que aj gi Màkka la commencé commencé wul Madina moo tax sax am na boroom xam-xam yi wax ne moo teeñu woon di jëkk a dem Màkka mujj Madina comme Madina dañuy ziare yeneen bi waaye Madina googu nag même bu fekkee aj ji aj ji lépp màkk la itam Madina da caa am xorom am xorom boo ko ca sempee est-ce que sa aj dina baax waaye nag am na ñu doon wax ne ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Aïdara Tijani ñoo ngi ko nuyu di ko ziar daana wax ni moo te ñoo doon jëkk te ñu waroon jëkkee rek màkka bu ñu paree mujjee war a door a ñibbisi waaye tabaarakallaahu ñeent fukki julli yooyu ngay dégg li ko waral mooy juróom-ñaari fan boo ko amee cib dëkk di julli ji ca jàkka je juróomi yoon par bés loolu munul bañ a nekk ñeent fukki julli su ko defee bu juróom-ñaari fan yooyu matee ci timis ñu war faa gonge ko ni ko oustaz Ousmane waxee war a jëm si màkkatal mukarrama déparé foofu jël kaar yi ca timis di daw topp guddi gi di daw am na station yoo xam ne fa la ñuy taxaw ñi war a jël ndox jël ndox ñi war a tuur ndox tuur ndox ñi war a jël kafe jël kafe loolu la ñuy jàppoo ba agsi foofu ñuy wax euh, Zu fa Ousmane wax na ko léegi Abara Ali lañu koy wax biiru Ali nga xam ne fa la ñuy décider façon aj bi ngay def umra wala euh, euh, tamattu wala ifraad wala qiraan sénégalais yi la majorité ifraad la ñuy def ifraad boobu mooy tax sax doo rendi gàtt ndax ñaari ci des boo ko defee di nga rendi muy tamattu muy qiraan boo ci def di nga rendi gàtt waaye bu dee ifraat bi moom doo rendi ndax boo nee labbayka xajjan décidé naa aj moom laa yéene daal di def sa talbiya boo ajee ba nga xam ne aj gi jeex na nga dellu Tan'im masjidu Aïcha def sa armal pour dellu si def sa umra loolu moo tax doo doo rendi waaye bu fekkee jóge nañu foofu ma Madinatul Munawwara jëm si Màkka ba si foofu masjidu biiru Ali ba armal ba commencé talbiya yi ba si Màkka jappo talbiya yi rek nak bo xese armal commencé rek talbiya ba ak si makka def tawaaful qudum muy wër kaaba gi gis nga kaaba gi diru lang fay nek di ko wër ñeenti yoon bu ci nek juroom ñaar yoon motax bo de yafus bo boo sa jakkay koñ sax du la gis du la ndax taloko wala monoko wala bo joge jëm ci jakkay ji di nga noppalu ñetti yoon wonk témer yoon xam nga ni bo bëggee wër kaaba gogu nga nyariyon ding teka bagi ko wër juroom ñaar yoon ñeenti yoon te kaaba gi boko wëré ci rek du bari ndax foofu nga koy gis noonu mu ni ñum ñu maaral nga di ko seen muy ñuul mel na lu tuuti 15 mètres la taxawaay bi ñeenti koñ yi bu ci nekk 15 mètres la boo ko wëree juste nag làng ak moom ba xaw sa mbagg xaw koo laal la ngay wër du bari doo sonn waaye boo ko defee amul doo am sécurité ndax bu waxante bay metti moo tax dangay ngay wiiri fu sori wiiri fu sori mooy tax ñaari wër bi yàgg di nga ko wër ñeenti yoon juróom-ñaari yoon euh, di nga ko wër ñaari yoon ñeenti yoon booy door a ñëw muy tawaaful xudduum di nga ko wër. juróom-ñaari yoon soo demee Muna bay dellu siwaat di def tawaaful ifada di nga ko waraat juróom-ñaari yoon soo demee Tanaim ba def sa armal pour war a dellu si def umra di nga ko waraat juróom-ñaari yoon soo demee ba aj ji jeex umra gi jeex ngay waaj pour ñibbi di nga def tawaaful widaa juróom-ñaari yoon muy ñeent yoo xam ne ñeenti yoon yoo xam ne bu ci ne juróom-ñaari yoon léegi soo jógee biru ali ba ñëw def tawaaful quddum war a départ foofu dem Muna soo demee mun a fanaan fa comme ni ko Ousmane waxee ci juróom-ñetti fan yi juroom netti fan yi nga départ wuti wuti arafa yonent bi nee na alxaju arafa am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu déggee taxawaayu arafa dañuy jàpp ne da ngay dem ni temm taxaw rek jatu ba ba ngoon jot taxawaay bi assistance bi la ñu wax teew gang fay teew ca dëkk ba mooy taxawaayu arafa te yonent bi nee na alxaju arafa dëgg dëgg aj daal aj daal mooy arafa foofa ngay nekk ba jant bi so jant bi fara lay soyee waaye doo fa julee timis nga door fa départ de Musdalifa soo demee Musdalifa fa ngay fanaan fore fa xeer ya fajar nga départ dem pour sànni ji jamratul aqaba boo sànnee jimaar yooyu ba pare juróomi ñaari jamra yooyu boo ko sànnee ci nga fay départ waat wuti kaaba ga pour def tawaful ifaada foofu boo dikkee daw safa ak marwa retourné waat ci ngoon gi war a dem munaa pour deux jours ya nga fa war a def xoolal rek circuit bi ngay bi nga bi nga bëgg a def yëpp waaye li gën a yéeme ba yéeme El Hadj Malick mooy égalité bi yàlla def ci arafa def na ko màkka gépp ak madina sax waaye arafa ci gën euh, euh, muna muna yow koo xam ne da amoon sa kër gune yang am sa lal yu nooy am sa espace tey fa ñu tàmbaleeg yow mooy duri sa bopp am nel boo dee góor bàyyi ko noonu mu ni fundung yoo xam ne wasoon rusoon ngaa génn ne soloo mbaxana maa nga kaalawu léegi ñu duri la ba nga set nga tënjaayoo ñaari morso benn bi nga woddoo ko benn bi tënjaayoo ko soo demee amoo fam néeg amoo fam lal tant góor ñaa nga ne ay ay moket lañu fa lal dangay xool ba gis foo xaj daal di banku ne ku fuñ banku geganoo sab sab saak tant jigéen ñaa nga nee noonu lañuy def tant yooyu di nga ca gis am ministre di nga ca gisu député di nga ca gis borom dombu tànk di nga ca gisu maire gis nga noonu ak surga yi nga xam ne dañ daan làppatoo di yenu ñu leen di fay ñoo yem màccuwaay foofu ñoo yem fu ñuy tëdd tàntu góor ñi tàntu jigéen ñi bu bët setee ñu jëm ci toilette góor ñi wala toilette jigéen ñi kenn ku ci nekk jël sa bidon jëm ci toilette yi pour faj sa aajo rang la ñuy def rang googu nga gis noonu ab sëriñ nga ca ab taalibe nga ca ab xalifaa nga ca ku nekk nga ci rang gi ñëpp ba yem jëm ci toilette yi. buura nga ca buura nga ca nga ca su ko defee xoolal xeetu tolloo googu ñu tolloo bu ñu demee nag fi gën a téye yéeme ba ñu ne añ jot na. kilifa gu nekk bokk sa bool ñëw ca restaurant ba taxaw jatu di di di di di wut loo lekk maa ngi koy nettali am na kilifa gu mag ci réew mi nga xam ne topp naa ko ñaari di ko ñaan audience mu tëtic ñu daje màkka ca munaa yàlla dimbali ma ba fa mu tëddoon ci munaa fa mu fa mu nekk ku fuñ banku ca moket ya ma banku ci wetam sama bopp ca yeel ya fa ca yeel ya la féete daanaka mën naa ne yeel yi laa doon gëganoon ci koo xam ne def naa lu ne pour mu recevoir mu tëti ci waaye gis nga foofu ñu jóge foofu ci coono yooyu gis nga dem arafa defu xufa arafa jóge fa dem musdalifa def tawa def dem dem defi jamratul eh, eh, jamratul aqaba jóge fa dem defi tawaaful ifaada tawaaful ifaada bi sax ñu bari dañ ci jummee moom mën nga koo bañ a def sax te doo ko def ci yoomu naxari bi bisu rendi bi mën nga ko bañ a def mën nga koo def mën nga mën nga koo tardeel ba heure neexee nga def ko bala ngay ñibbisi waaye ñu bëri ci bis boobu lañ koy def jamratul aqaba daal la ñëpp ñëpp ñëpp di defandoo ci même jour bi ak waxu fa arafa loolu moom mënu ko bañ a defandoo ak ñëpp ci benn bés loolu xoolal surk boobu nga jaar jaar jaar jaar jaar ba ñu ne aj gi jeex na nga dellu Tan'im juróom-ñaari kilomètre digganteem ak Makka la mooy masjidu Aïcha defaat beneen armal pour ñëw def sa umra yooyu yëpp nga def ko ni koy ko yàlla sant yonent bi bëggee ko noonu waaye kii yàlla fayewu la lu dul boo ñeen fukki guddi loo ci ñaan mu nangu ñeen fukki guddi képp bu ñeen fukki guddi yee jeexee yaa ngi ñëpp loolu mën naa nekk ëpp na ñeen fukki guddi bu ñu nangoo sa aj kay jàppal ni loo ñaanati yàlla mu nangu ko ndax li ñu wax ni alxajjul mabruur Ousmane wax na ko léegi alxajjul mabruur laysa lahu jazaa ilal janna koo xam ne nag àjjanaa nga lay xaar di sa pay loolu dina la topp ba loo ñaanati yàlla nangu ko tabaarakallaahu Ah, sunu gan gu tedd gii fi teew te ma tuddoon turam léegi muy El Hadj Malick di boroom xam-xam dama bëggoon mu nuyoo daal di feelu feelu la ndax tabaarakallaahu moom itam ah yàlla dogal na borom expérience la ci wàllu wii non seulement ci wàllu rajo wàllu télévision waaye nag wàllu aj ndax xam-xam tabaarakallaahu la ko yàlla defal rek defal na la ko mm-hmm. waaye nag mu amit yar am teggin parce que dégg naa benn mbokk mu baax léegi laa tàggu moom alaaji ma dooki ñang na ko yàlla li wér mu ne nit dina am alal ñu boole ko alalam toroxal nit dina am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toroxal waaye diw yaru na ba ñu toroxal ko lu néew a am na e, tabaarakala loolu mooy li ci nekk te yar bi matale na teggin yi matale na kon tabaarakallaahu Cheikh Alhaaj Malick e, ñu ngi lay dalal nga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 di Safina FM 98.2 di ziaré kilifa gi nga xamanteni ci si moom la yàlla euh, tek li ci loxom di kenn ci sati Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mhm. al mujahidul akbar mhm. euh, ñu nuyu ko nuyu njabotam nuyu mbollem ñi nga xamanteni ñi ngi japp ci liggey bi waye nuyu li tam yow haji Masilla, nuyo bo nga xamanteni euh, ci suñu loxoy xol lañ ko jëlee di la ñaanal barki di la ñaanal tawfiq ci barki yent yalla muhammad Ali salatu wasalaam dem rek ma ngi waxtaan ak ben mbokk ñuy waxtaan muy wax lu bëree bëri say waxe rek jël reference ci euh, sa wax maniko dafa am lu Serigne Cheikh Tidiane si maktum wax neena mag ñi dafa am euh, guerre bu ñu won woon ba gagner ko da moy fexé ba hikam yi nga xamanteni ci olof lañ ko teug ñoom ñu ko daan sonne pour pour pour pour pour mu dëgër ci Sénégal moo tax mag moo ci dem rek bu waxtaanee ak yow xikam yam lay jox tabaarakallah dana doy sëkk nga man cee tabax sa dund te fekk na bu ci nekk alxuraan la xadis la. ma ni ko lool nag ñi ko garde ci jamono al ustaaz Massyla Kane da cee bokk fekk muy wax ba am xikam bu am solo bu mu ma jox. ma ni ko bii moom damay jóg bind ko bala mu koo fàtte mu ni ma maa ko déglu woon ci benn conférence al ustaaz Massyla Kane wax ko mm-hmm. loolu itam tabaarakallah am na solo. Eh, ñu nuy itam El Hadj Ousmane mi Seydina Ousmane ndax waxtaanam mi biñ koy déglu dañuy yëg ni ci déglu biñ koy déglu dafa mel na ñun ñu ngi ci biir aj gi ndax nim ñu koy joxee maanaam eh, pot côté bu nekk rek ak lañ fa war a def yow miy déglu da ngay yëg ni lii boo fa demee da nga dem ba xam ni boo fa demee nii nga koy defee te doodoo ko fàtte xam nga njàngale pédagogie da cee bokk maanaam fasaaxa dafa am solo ci li ngay wax ba nit ki man koo jël non seulement ko dégg rek waaye mu capté ko te capté moo ëpp doole dégg rek ko defee nga garder ko sa xol ba xam ni nii lañ koy defee loolu dafa feeñ ci waxtaanam kon ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax a baax dafa wax nag benn wax bo nga xamante ni man ci laay mën a sama wax moo tax du ma mën a guddal ndax dafa wax ni du euh, maanaam xam ngañ ji yàgg cuub la gannaaw yéen ñaar ñi ma bokkal plateau bi yéen da ngeen a <laughs> man cuubaguma yaakaar naa ni màkka faaw nga mës a cuub door cee mën a dugg bu baax a baax ndax yaakaar ku yam ci téere yi rek donte ni téere yi liñ indi wér na boo yemee ci téere yi da nga yëg ni am na lu baree bari lu soppeeku ci ginnaaw gi donte ni du soppeeku waaye jamono ci boppam moom mo tëdde noonu bu ko defee yéen ni ngeen indi indiwaat ci li ngeen jàngale di ci dolliwaat dara du mën a nekk rek gën a ndokkeelaat mbokk yi gën a fàdd feddaliwaat mbokk yi ci li ngeen wax ni nañ ko gën a jàppaat te ni ngeen ko waxee noonu la aj di tëddee ku bëgg am aj gu nangu faaw mu déglu leen ci ni ngeen ko jangale pour mu mën a dëppoog aj gi nga xamante ni noonu la ko yàlla santaane noonu la ko yonente bi salaa salaam santaane euh, euh, xam naa li may gën di wax ci sama wax Seydina Ousmane dana ci dikk bu ko defee day mel na genre tontu lay doon ndax dafa am ñett yoo nga xam wala ñaar yu feeñ ci aj te ma gis nit ñi di ko dese ci aj te ma jàpp ni war na génn na ci aj benn bi mooy taraxlaayu gi ñuy def di génnee seen mbagg mi loolu yaakaar naa ni loolu itam dina am lu ñu ci leeral ndax loolu dafay exister ci aj gi ba léegi suñu mbagg mi ñuy roj génnee bi ci topp mooy dañuy wax ni diggante Safa ak Marwa ñu bari boo dégg Sénégal dañ naan da ngay daw si diggante Safa ak Marwa mhm. est-ce que dëgg-dëgg diggante Safa ak Marwa daw la mhm. est-ce que daw lañ fay def mhm. ñetteel bi ci topp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne alxajju arafa te bu ñu jàngee ci téere yi dañuy gis ni aj googu maanaam arafa ci boppam sénégalais yi wala nit ñi dañuy yéeg ci kaw doj wa mm-hmm. di yéeg lu waaye gën a kaweel sa bi yéeg rek jàpp ni yow noonu la et pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéegul woon ca kaw doj wa mm-hmm. min asfalil jabal lañ wax mm-hmm. ñu muur ko lu mel na ab sér ci kaw gileemam ga keroog sax dañuy wax ni wóorul ndax def nañ benn test jël lu mel na pot def ca njar jox ko mu naan wan gannaaw xeer yi def xutbaam googu nga xamante ni moom la fa defoon moom yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ba benn la ci xeet yi ba wax ci lu baree baree bari ak uh, lii ji xew ci jamono te ñaan yàlla fay ko muy ay yi tàkk ci àdduna te ay jullit di ko defalante ci seen biir nga gis jullit mooy jël moroomu jullitam def ko noon di ko jam di ko song uh, jullit ñi ci boppam la nooni jullit ñi di utiliser woo di jëfandikoo ci seen kaw moroomu jullit yooyu yéen yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko keroog yadribu ba'dhum riqab ba'd yonent bi neena won bu len bayyi bama joge fi ngeen kenn ku nek jël sa morom def ko non ca fofu la ko waxe won limu wax itam ni li nga daan def moy boy julli di jubal sa nja ca kaaba ga bis bu la yalla maye ba nga jakarlo li nga daan jubal sa njëg kon war nga xamni yalla nanguna sa ñaan war nga profito itam fofu lo bëgg nga ñaan ko dafa mel ci rew mi dañuy wax ni bam démé makka ñaan nga gudu gudd gudd ak lamay gatt gatt mom dafa ne yalla yalla na fi yag tam jariñ benn bu ko yalla maye mu yag fi sens la waye bu fi yàggul itam am jariñ sens la ndax bo amé jariñ amal nga jariñ sa bop amal nga jariñ sa société amal nga jariñ sa diiné ko li ma kan wax tabarakallahu ni buñu japp ni ñaan nga nga fay ñaan yalla diko nang yalla yalla ëppalé na bopam di may euh ak nangok ñaan ci diiru ñaan fukki at ñaan fukki fan lu toll na aju màkk ak coono bi nga ci daj alal ji nga ki def temps bi nga ci def ak temps ni mu chéré ak sa jot gi nga ci def lépp nga def ko ngir jaamoo ko yàlla yàlla di la fayee fii ak fukki fan boo ñaanee ma nangu ko <laughs> léegi daal sa bi nga dugal abonnement bi nga def ñeent fukki fan lay dox bu ñeent fukki fan jotee euh, kenn dootuloo woo jot la dootoo woo kenn loolu moom suñu borom ëppale na ko boppam kon yaakaar naa ni foofu laay yema déegun tëng ko foofu xam naa say Seydina Ousmane dana dikk ci euh, question yooyu ñëw ci suñu kanam ñu ndokkee laat la bu baax alxaaj masil la ndokkeel auditeurs yi ba ci kanam insha allah tabarakallah tabarakallah laaj Malick wax nga dëgg wax dëgg yëf yi leer na leer na lool tabarakallah àgg na ci nàññ yéen yàlla barkeel dañu bàyyi Ousmane rek question yi muy wàllu mbagg yi ñuy génneek daw bi ñuy def al sa'yu bayna safa wal marwa ndax daw la wala déet loolu Ousmane. Mhm. dañuy bàyyi dañuy bañ dugg ci sa ci sa sujet dañ lay bàyyi nga wax ci. Euh, jërëjëf Hadj Malick jërëjëf Hadj Masila euh, Hadj Malick kontaan nañ bu baax euh, ki ñu yàgg diglu mu teew lañ daan gis rek moom lañ gisaat tey yaru baax na lool am xam-xam baax na waaye yaru moo koy couleur c'est Hadj radiallahu anhu bala maa ñëw ci tontu yi xaj ma si la daan ko wax benn waaye ñëw na ci moom ne ko sama doom ñett ko soxla mu ne ko kan kan mu ne ko kenn ki xam-xam bi bari na kenn ki alal ji bari na kenn ki ci yax bu rëy la bokk mhm. mu ne ko ñoom ñett ñëpp bu ko ci may kenn mhm. mu ne ko ah si xanaa déggoo li ma wax dama ne kenn ki bari na xam-xam kenn ki alal ju bari la yor kenn ki ci yax bu rëy la bokk mm-hmm. mu ne ko waaw dégg naa ko waaye bu ko may kenn ci ñoom ñett ñooñu mu ne ko nu may def mu ne ko seetal ku ragal yàlla nga may ko sa doom mm-hmm. nit nag bu ragalee bu yaroo dana ragal yàlla xaj malik ñoo ngi lay gërëm bu baax ci li ma si la wax sànq ci yow noonu loolu moo am wax nga dëgg nit ñi dafa am yu ñuy jaawale yoo xam ni ñàkk xam rek moo koy waral léeg-léeg ñu dem Makka bu ñuy wër Kaaba ga dindi seen mbagg yi daw bi ñuy daw Safa ak Marwa baatu daw ba ñu tuddee ko déparé Safa di daw ba Marwa jóge Marwa daw dellu si Safa bi ci tegu yi tamit Arafa ñu taxaw ba taxawaayu Arafa ñu yaakaar ne ci ci xeer wala ca boobu lay mujje jëkkee euh, Arafa moom yaatu na yaatuwaay boo xam ni ci suufu xeer wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawalon gëlëmam ga war ca kaw gëlëmalam ga ñu muur ko benn morceau pour naaj bi bañ ko sonal firiwul nag ni soo demee xeer woowu da ngaa war a yéeg ca kaw xeer wa danger la sa nga yéeg ca kaw xeer wa mun na am dara jot la fa wala dara gaar la fa loo xam ne mën na laa jural loo xam ne du la gënal arafa daal yaatu na yaatuwaay boo xam ne boo xasee agsi foo toog foo nekk rek baax na suñ ne taxawaayu arafa yi tamit masi la wax na ko sànq firiwul ni da ngay ñëw rek ni joddu taxaw ba jant bi so loolu ñëpp mënuñu ko kon firiwul ni taxawaayu arafa da ngay ñëw taxaw ñëwal tànt yaa nga fa jëlal sa basang lal toogal boo sonnee sax tëddal su ko defee loola rek la ci am solo mooy barab ba teew fa teewaay ba nga fay teew rek loola la ñu bëgg waaye firiwul ni taxawaay la ba jant bi so firiwul ni tamit yéeg ca kaw xeer ba la bi ci tegul laaj bi ci digg bi mooy daw safa ak marwa déedéet safa kenn du ko départ yi daw dem ba marwa jóge marwa dellu siwaat ba safa déedéet waaye nag am na barab boo xam ne soo fa accès da ngay ñukk soo déparé safa jëm marwa am na ci digg bi foo xam ne sax làmp bu verte ma ngi fay tànk comme ni ma ko wax sànq bi na soxna su ma doon jàngal soxna Aminata Diop euh, ñoo ngi koy nuyu euh, bu baax di ko wax ne ko soo jógee safa boo dawee boo wëree kaaba gi ba pare julli maqaama Ibrahima naan zam-zam da ngay xool nag pour war a dawi safaa dawi safaa mooy am na làmp bu verte booy séen boo xam ni fa ngay jubal foofa la safaa nekk foofa ngay déparé soo accès ci lampe bu verte ba nga déparé fa sooy daw ba ci digg bi am na lampe bu verte booy gis mu tàkk boo fa xasee accès rek commencé ñukk waaye firiwul da ngay daw daw bu baax sax déedéet espèce doon rek boo xam ni bu xaw a yem lay doon am na foofu itamit boo fa àggee da ngay taxaw continuer sa dox ba àgg marwa soo wàññeeku waatee boo dellusiwaat ba toolaat foofu nga ñukkaat ba ci kanam nga bàyyiwaat dox wutiwaat safaa waaye firiwul ne da ngay déparé safa ñëw ba marwa di daw déparé marwa ñëw ba safa di daw loolu euh, ku am kattan sax mënu ko waxuma la màggat yi nga xam ne ñoo ëpp ci ñuy dem sénégal foofa ca màkka bi ci tegu mooy euh, dind mbagg bi ñuy dind mbagg ci jamono yonent bi alayhi salatu yi dañu nafiq dañu saay saayoon te bari woon lu ñu daan yi ak ah xoolal jullit yi ñuy doyadee xoolal ni ñuy xoolal ni ñu tuutee xool ni ñu wowee yéeféer yi dañoo amoon doole suur xam nga kuy lekk te la ngay lekk seetoo ci lu baax seetoo ca lu yàlla daganal lu la neex ngay bombardé di lekk rek da nga yomb rëy jullit nag bu kon bu yemee ci li ko yàlla tënk jom te lekk ca sax ba nga xam ne du suur it mën na am xëy na du am kàttan loolu léegi nag loola ñu daan wax jullit yi yonent bi dégg ko ci leen daan daan wax ne bu ngeen accepté ci kaaba gi seen wàllu càmmoñ na ngeen ko wàccee bañ gis te bu boobaa tamit na ngeen di tëbal seen pergi yi bañ xam ni yéen néewu leen doole wu leen waaye loolu amatul léegi comme amatul léegi kay jaratul boo fa jël sa mbalaan ma dindi di ci wër kaaba ga bi dellusiwaat ndax jamono ju ko yéefere doon wax jamono ju ko naafiq yi doon wax xëy na jooju jamono amatul su que defee daal ñetti laaj yooyu bu njëkk bi bu njëkk bi euh, dindi mbagg bi du won dara bu njëkk lu dul yi xas yuñ daan xas julli di ci dañoo tuuti dañoo néew doole yonent bi ni won leen ne leen néewuñu doole tuuti wuñu dindi leen mbagg yi tëbal përëg yi wan seen kattan comme noonu mbër mii def buy dugg ci làmb ji di espèce su bàkkoog yooyu wan leen leen loolu loolu moo doon sababu dindi mba euh, mbalaan bi bi ci jógee daw safa ak marwa yi tamit firiwul da ngay dawee safa ba marwa dawee marwa ba safa déedéet am na ci diggante bi rek boo xam ne da nga koy ñukk ñetteel laaj ba mooy arafa firiwul ni da ngay dem ci kaw xeer wa yéeg fa nit ñi sax léeg-léeg nga di ko gis ndeysaan da ngay gis leen ñuy sonn lu nañu di ko daj di baftandiku lu nañu dugg pour bëgg yéeg ci kaw da jaru ko ñëwal arafa rek soo agsee xam ni fii mooy arafa foo taxaw baax na ba jant bi so loolu daal laa ci bëggoon euh, yokku di la won ne tamit ni euh, fa tabarakallahu ñoo ngi dëgmal aj xaj ma si la wax na wax jam solo euh, gis nga màkka moom yàlla rek la ku dul yàlla doo fa dara wax na dëgg da fay gis koo xam ni at mu ne da ko topp pour gis ko mu tëla wala ngeen dem sax daje ci programme pour nga tok jox ko loxo sax day xawa jafé ci yow waye fofu sax yalla da leen di manam na fi kilifa gu reuy go xamni fi ci bir senegal gi télé ba ci conférence yi lañ daan dajé rek waye yalla dimbali na may mom tante ba ma nekkon ci Muna mag mom ño bokon tante ba ño fa don bok di yendo di fanan té moko ko tuddoon xam ko bour président baadoola surga ku meuna don doon ño bok yem fofu dal yalla mo fa yalla mhm. su ko defee ni ñaa di dem euh, nañ defara jikko yi rek su ko defee ngir ñu mën a màng yiw ga xam nga yàlla ku baax la baaxaayu yàlla ga mooy firi nii euh, du la nangul ak sag aj di la tënk firi bi mooy bari na ci dëkk bi fii kër yoo xam ni boo fa demee ña sancoon kër ga ñoo nga barzàq tey te teraangay dox ba léegi ca kër ga xam nga lu ko waral teraanga ga yàlla joxoon boroom kër ga mu jóge fa yàlla du dagg teraanga ga boole ko boroom kër ga yóbbu déedéet teraanga ga day continuer ba illa yow bi diine loolu daal laa bëggoon a aj ci li nga wax léegi xaj ma si la fa tabarakallah jërëjëf jërëjëf leer na leer na nag macha allah ndax euh, foofu mu wax nii ci daw daw safa ak ba daw baatu saa yi lañu wax mm-hmm. waxuñu jar yu bay na safa wal marwa mm-hmm. comme saa yi lañ wax nag saa yi xeetu doxin la woo xam ne doxinu borom fayda la boo àggee ba ca lampe verte ba nag nga daal di ñëkk. Mm. ñëkk am na ñu naan ñukk am na ñu naan ñëkk. Mm. loolu rek la ah la itam muy génne mbagg mi mm. eh, bu doon bu ko jigéen defoon rek anam bu baax. yàqu waaye bu dee góor comme rombul awraam fi mu yem parce que ci jumbux bi lay eh, awra góor tàmbalee ba ci bëti woomam eh, waaye rek li la ni ko Ousmane waxee noonu la demee kon tabaarakallaahu noonu mu ko leerale rek loolu mooy li nekk beneen bi ci des tam mooy tawaaf kaaba gi te ak fóon alxajar al aswad muy loolu ñuy wax la pierre noire Ousmane wax na ko léegi kaaba gi boo koy wër sa ko boo koy wër da ngay déparé sa côté càmmoñ mooy féete moom parce que foofu la xol bi féete xajarul aswad boobu wax nañu ni eh, bokkul ci li nga xam ne dañu ko loxo nit a ko tabax xam nga ñu bari boo leen laajee kaaba gi dañu naan kaaba gi maam Ibrahima ko tabax mm. mais kaaba gi maam Ibrahima tabax ko mm. tabax ko de mm. kaaba gi maam Ibrahima mooy ñeenteelu ñu ko yeesal ñu yeesal tabax bi mm-hmm. kaaba gi ay malaayika ñoo ko jëkk a tabax ci seen digalu boroom mm-hmm. di ko tawaaf jamonoy dem ba mu sànku ba mu sankoo ba feeñatul sunu maam aadama la yàlla joxaat ndigal mu sulli ko mm-hmm. continuer waat yeesalaat ko continuer ndigal loolu bi fi maam Adama jógee siisa doomam moo ko mooy ñetteelu ñuy def tajdiidul eh, xaramin makki yi ginnaaw siisa sunu maam Ibrahima nag mooy door a jot ndigalu beesalaat moom mooy ñeenteelu ñuy def tajdiidul eh, eh, kaaba e, ba gis nga sax maqama Ibrahima moom fa mu daan taxaw gis nga ni ko yàlla defaloon boo xoolee maqama bi fi mu nekk ak fi kaaba gi nekk daanaka war naa mat quinze mètres danga naan waaw fii nu fi Ibrahima mënoon a taxawee di jot kaaba gi waaye yàlla daf ko defaloon maqaama boobu noonu doon xeer la woo xam ne gis nga lenge yi nga xam ne ñii tabax immeuble yu mag yi ci la ñuy nekk nga xam ne benn nitee ne ci suuf di ko manipuler fu mu bëgg mu toll fa mu toll fa mu jël brique teg lu mu bëgg a teg teg loola danduwaat xeer wa noonu la meloon maam Ibrahima dëgg ca xeer wa te kaaba gi nee naa la guddaay bi ci kaw 15 mètres la hmm. taxawaayu doomu aadama buy yëkkati ay brique di teg te ba léegi kaaba ga kenn raaxu ko da ngay gis birig yi nit mun la taxaw ci suuf mën a jot loolu bu la yàlla dimbalul xeer wa moo nekkoon loo xam ni bu maam Ibrahima ne cas birig xeer wa day jóg. yëkkati koog moom ba mu tolloog fa mu ko war a teg mu ne ko fa teg xeer wa arrière. ba mu liggéeyee ba loolu sotti te la xeer wa reculer 15 mètres nekk fa mu nekk. soo yëree ci xeer wi noonu ñu ko defaree maqaama bi noonu ñu ko rafetale décoré ko def ci or. soo sànnee sa bët di nga gis ñaari ndëgguy ma Ibrahima yi fa mu ko dëggoon ca xeer wa benn bi neuf centimètres la dix centimètres la xootaay bi li tànk bi wéex wéex xeer wi dix centimètres la tànku càmmoñ bi neuf centimètres la xeer woowu nag la ñu defar ba mu jekk boo defee sa tawaaf ba pare nag nga ñëw julli fa ñaari rakkaa muy maqama ibrahim moo tax entre wax nañ ni bi nga xamee ni saoudiens yi waxoon nañ ni maqama bi nañ ko dindi ndax bi ñu demee ba kaaba gi tawaaf bi dafa mujjoon di xat embouteillage am fa ay nit di fa dee mm-hmm. dañu ni maqaama bi comme liggéeyu kaaba gi pare na pour l'instant nañ ko écarté mm-hmm. jële ko fi ma jële ko fi mm-hmm. fekk si góor gu baax euh, sëriñ bu baax a baax borom xam-xam nitu yàlla Cheikh Ibrahima Niass fa la ko fekk mun leen ah tey ngeen ko fee bàyyi ndax maqaama bi comme yàlla garanti na ko ne na man daxalawu kaana aminan tey ngeen ko fee bàyyi ñu ne ko ah sa tur wi ngay défendre rek comme Ibrahima nga tudd Ibrahima la waaye ba ñu commencé di def seen expérience pour miné ko jëye ju bare bari la fa jur ñu bàyyi fa maqam bi xam ne loolu hmm. maqama boobu di wër kaaba gi ba agsi ci alxajarul aswad hmm. da nga koy fóon soo ko munta fóon nga teg ci sa loxo bu loolu jàppandiwul nga nuyu ko rek tàllal ko loxo rek jàll xeer woowu dafa ñuul waaye cosaanam wax nañ ni dafa weexoon tàll ko meew hmm. waaye genre aspirateur la boo xam ne bàkkaaru xeet wi koy wër lay muucu moo ko tax a ñuul. Hmm. am na ci ñu doon def tajjudul binaay yi di tam di beesalaat kaaba gi am na benn entrepreneur boo xam ne nee na gëm na wax jooju. Hmm. gëm na ni la pierre noire ñuulul woon dafa weexoon ndax nee na am na beesal guñ doon beesal kaaba gi. te bu ñu demee bay tabaxaat kaaba gi dañu koy rocci moom xeer woowu teg ko à côté hmm. bu ñu paree roofaat ko ci place am nee na bi ñu bi mu koy rocci ci miir bi. gis na ne li sampee woon ci miir bi dafa weex comme meew li féete bi tee ñuul mu ne kon li ñu wax ne cosaanam dafa weexoon gannaaw bi la ñuul noonu nee na loolu moom gëm na ko bu ko defee nag bëgg ngóora ba ni damay foon xeer wi hmm. ci buuxante bu metti boo xam ne mën nañ laa fël sa bopp dal ci indil la jàngoro joo xam ne nga hmm. indaale ko fi wala sax maradi taali musuma mën na la ci topp hmm. loolu tamit mën na ñàkk su ko defee tamit ñu def ko rek aj goo xam ne ah ak it yoo xam ne nag wax dëgg yàlla itam ah nit ñaa ngi koy ñu ngi ci yeewu si ndax bëñu or yi ñu monte boo demee <laughs> eh, wax dëgg yàlla loolu itam daanaka boo yorul xaalis daanaka xaw koo mat hmm. ah eh, eh, mbaxana mi ngay jëli tamit teg ko sa bopp itam ah baax na waaye nag bu la neexee tam mën nga bañ a sol mbaxana moomu mbaxana moom nga xam ne màkk seen aadala ñoom dañu koy sol jël am manto teg ci loolu rafet na trop waaye nag euh, du caagi nag boo ko solul doob alaaji hmm. waaw la am nañ ñoo xam ne dañ ciy doy lool maa ngi maa ngi dégg euh, Serigne Cheikh Tidiane si di wax ni dafa am koo xam ne dafa jóge màkk waaye duñ ko wax alaaji mu mujj nag mer lool <laughs> daal di ne waaw man de dama jaaxle yow ndax dañ man ñu wax alxaaj nee na ma ni ko waaw lu tax doo wax yonent bi alaaji mu ni ko naa aji na mu ni ko ah bañ yonent bi kay aj na waaye tabaarakallaahu su ko defee yooyu yëpp dañ ko ci dolliwaat rek bii nga xam ni tam bu ama am solo la ci li Ousmane doon leeral ci dëkk ba bu ñu fa demee yàlla rek ngay sentir sunu kilifa gu baax yal na ko yàlla dolli leen Serigne Mansour si borom daara ji dañ ma nekk di nee na bi mu demee Màkka yàlla dogal mu nekk ca Madinatul Munawwara mbokku taalibe bu xër xam nga taalibe rek dem ci meneen mbokku taalibe ni ko nañ dem. hôtel bële ci la sëñ Mansour ne dem ziare ko bi mu ko waxee xarit bi xarit bi ni ko sawaay fii daal moom nabi rek fii daal moom nabi rek waaw léegi nag waa ji daal di mer daal di mer daal di ni kii du taalibee daal di waaxu ak meram moom demal boppam waaye gis nga nitu yàlla yi dafa agsi rek sëñ Mansour buub ko ni ko ziar moom bi yoon nabi rek fii daal nabi rek nan bàyyi ba ñibbi Tiwaawan mooy li Ousmane wax rek parce que dëkk la boo xam ni boo fa demee gis nga kaaba gi xaram boobu noonu raglu gi mu raglu boo fa demee góor ñeeg jigéen ñi di jaxasoo di di riisonte te kenn du sentir lenn lenn lu lu wuteeg yàlla mhm. kooku bërëb bu yàlla fees dell rek moo ko mën mhm, mhm, ba tax na même julli gi sax bu ñuy julli léegi-léegi sàppe bi nga ran yow di julli da ngay xool sa côté ndeyjoor wala sa côté càmmoñ jigéen a fi taxaw nga sujjóot mu sujjóot ci wet gi. Mm-hmm. te yàlla mën na laa natt sax. sa mbagg mii tegu ci mbaggum jigéen ngay sujjóot di julli ci kaaba gi. Mm-hmm. te duñ leen jéem a jéem a séparé naan sàppe jigéen ñi daal leen ca gannaaw góor ñi ak si ci kanam. Mm-hmm. donc amu fa bu julli jotee ñëpp yàlla julleendoo rek. parce que xel xalaatul xalaat fa lu dul yàlla. kon euh, al oustaz euh, noo ngi jëm ci jeexitalu waxtu yi. ñu bàyyi la nga tàggatoo. ah li ngay tàggatoo mbokk yi parce que cinq minutes moo nu dese ñu bàyyi la nga tàggatoo. tabaarakallaahu alhamdulilah moom daal xam naa ñu bàyyi xel rek ni ñoo ngi jëm ci jaamu yàlla gu am solo. Euh, li may faral di wax nag léeg-léeg ci yenn oto yi may dugg ma naan leen tali bi xatul xol yi ñooy xat nañ yaatal xol yi. مكي تمين موخا مدينة لا موخا مكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة ولا فم في منى دون دوخات خليا نيو خات نان ياتال خليا رك سو ياتالي خلي كوم نيما كو واخا ليغي تي يالا لي موي بايي لو خيل ولا لي موي بايي خيل تي نيت موي خولم واخ يوم لا ينفو مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بوبو لي مو امال سولا يالا موتاخ بون ديفار ديمي نان ديفار خلي bari na ku jaamu yalla yalla nongu jaamu ga waaye dana ko nangu jox keneen dara warulu ko lu dul sa xol kon su ko defee nañ defar xol yi rek xam ni ñoo ngi jëm ci jaamu yàlla gu am solo bi ci tegu yi tamit mooy kilifa yu bari te am solo ci dëkk bi def nañ ko xajul asud boobu xaj ma si la doon wax mooy loxo yàlla ci kaw suuf loxo yàlla ci kaw suuf nag nit ki boo ko mënee jox loxo jox ko loxo soo ko mënta jox loxo rek tàllal ko mu gis la nga gis ko mooy loola rek omar ibnu xataab radiallahu anhu wër na ba agsi ci doj wi fóon ko en arrière ne ko ah doj nga rek de bu dul woon li yàlla wax ci yow du ma la fóon Aliyun ne ko déedéet du doj dong de bokkul ak doj yi ci des de kii mooy loxo yàlla ci kaw suuf kon ñu xam ne rek xajalu asot boobu ñu jëm noonu ku fa agsi mooy loxo yàlla soo ko mënee laal laal ko soo ko mënee fóon fóon soo ko mënta fóon soo ca tollee rek neel allahu akbar te continue kon su ko defee eh, ñi jëm makk yëpp yàlla na yàlla yóbbu leen ci jàmm delloo leen ci jàmm la sëriñ Babacar Si waxoon rek radiallahu anhu mooy ku dem makka des fa Euh, or la wala jamaa la su dellusee euh, jamaa lay wurus lay doon kon su ko defee dem Makka des fa baax na ñibbisi baax na waaye nag yàlla na ñibbisi jàmm te ñi aji ñëpp yàlla na yàlla nangul leen te ku demit na dalal xelam rek ni yàlla nangul na ajam ndax juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñaari junneeg juróom-ñaari nit ñoo demoon Makka juróom-ñaari junni yëpp kenn nangulu leen waaye juróom-ñaar fukki ya yàlla nangu na leen ñu jël fukk bu nekk rek aj ko ci junni bu ne su ko defee yàlla nangul na aj ñëpp rek li daal lañ ci bëggoon a indi rek bu rafetee nag yàlla euh, su lëndëmee rek li benn mbokk di wax su ñàkk xam-xam ak su ñàkk fasaaxa la ak ñàkk xam lu bari waaye liñ ci jublu mooy ñëpp jariñu li ci am solo rek mooy yàlla na yàlla nangul ñuy xaaji Masila ñoo ngi del di la gërëm bu baax di gërëm xaaji Malick di gërëm kilifa gi nga xam ni mooy taxawal lii di dindal di dundal duyna mooy Thierno Hamidou Yoroban yal na yàlla gën koo sàmm yàlla gën koo dëgëral yàlla gën koo jàppale ci waaxir ak baatin li mu bëgg xam na ko wala bu ko xamut it yàlla xam na loola ci moom donte xelam àggagu ca yàlla ko yàlla defal bi jaaxi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu chalage mari tàggootal ñu émission baa jeex barakallahu xanaa ñu ndokkeelaat la bu baax baax ci jotaay bii nga xamante si yaatal nga ko lool tabaarakallah ngir xam gi nga xam ni diine lu yaatu la Eh, te yàlla ku yaatu la ku yaatal la ñu ngi lay ziar bu baax ci loolu di ziare waat Seydina Ousmane tabaarakallaahu di ndokkeelaat auditeurs yëpp rek xam naa ni aj gi moom ni ngeen ko ubbee am na solo ku ko déglu tey dana ci jële lu bare bare bare bare ci biir yi ngeen doon wax ni da ngeen koy faral di gis sénégalais yi di ko faral di def man dem naa ba gis ñoo nga xamante ni dañuy dem ca euh, xeeri màkk yi sax foofu di ko indaale ci Sénégal mu mujj di jur ay musiba yoo nga xamante ni kenn xamul nu mu toll parce que am na yoo nga xamante ne si boo la sa ñàkk xam taxee nga def ko wala sa xër te xam nga lislaam euh, jëf ko du xër lislaam ay texte la ci texte yi rek nga mën a sukkandiku def ñu nangul la waaye bu la sa xir taxee def nga def da nga def longa nga xamante ne si musiba la lay jural kon yooyu yëpp yaakaar naa ni ngeen ko indi leer na fa tabaarakallaahu ñi ngi ndokkeel auditeur yëpp di baalu ñëpp àq euh, di jéggalu ñëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu beneen jotaay barke yent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam te yàlla rafetal dégg yi ginnaaw bi nga xamante ni jéem nañ suñ kemtalaay kàttan doon rafetal kàddu yi te doon ko teg ci ay texte yàlla na yàlla nangul ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabarakallah jërëjëf kon nag ñu ngi jaare ñëpp tabarakallahu di leen ndokkeel tabaarakallaahu di ñaan yal na yàlla dolli ñu tawféex ah ñu ngi dellu wax nañ ko daan waxee rek euh, gàtt na jeex na moo tax mënuñu lim waaye képp ku ñuy déglu euh, tabaarakallaahu ñoom Adja Alimatu Mbaw ñoom alors euh, Alaaji Malick Ndiaye ñu nga xam ne nii bëri nañ sax nag wax dëgg yàlla ma bañ a dugg foofu rek ñu ngi jaar ñëpp daal di ñaan yal na yàlla dolli leen tawféex di ñaanal borom rajo bi muy Thierno Hamidou Yoro Bane ak sunu directrice bi muy Hadji Ñima yàlla gën ko jàppale gën ko dëgëral ak techniciens yi muy Matar ak Hassan yal na yàlla dool leen tawfiq ak mboolem kuy liggéey ci rajo bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.